taxoon tey ñu ci ci ci bëggam lu baax ak jàppul ci liggéey bi muy ñëw mu ne day def dañuy def ñaari fan formation agent état civil ñu former leen ci ñaari mbir organisation état civil ni mu war a woo waaye ak benn benn rëq-rëq yi nga xam ne du ñàkk ci lu mel ni état civil surtout état civil bu mel ni état civil bu Touba ba dëkk boo xam ne boo xëyee lu mu néew néew signature yi dana mat trois cent quatre cent signature te lépp ay document la yu ñuy remplir te différentes personnes di ko remplir léeg-léeg mu mën a am benn njuumte walla benn rëq-rëq wala benn manquement ci biir loolu nag jàmbaar lañ ci lool ndax ku gis état civil Touba fi mu nekkoon ak tey fim mu fi nekk ak fim ko moom lim ci apporté bi mu fi ñëwee ak léegi nga xam ne def nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne fi ñi ñu ko gën a ràññee dëgg dëgg dëgg liggéey bi sax du ci biir dëkk bi nga koy xamee waaye ñi nga xam ne ñi ngi tukki di nekk ci àll bi di am ay jafe-jafe këyit di dem ci immigration yi nga xam ne ñoo nekk ci Europe ak yeneen ñi yónnee ay renseignement ci ambassade bi nga xam ne moo nekk Sénégal bi laaj ambassade bi di ñuy yónnee ay kayit ñuy tontanteeg ñoom ngir di leerlu ñooñu ñooy gën a xam ofi état civil bi fan la nekkoon ak tey jii fan la nekk ak état Sénégal bi nga xam ne moom dafay évaluer mbooleem communes yi nekk ci réew mi seenu doxin ci état civil naka lay demee di ko càmbar ñooñu it xam nañ Touba fan la nekkoon ak jamono yii ñu toll fan la nekk ak rigueur bi ci état civil bi naka la toll ak ni volume bi nga xam ne moom la état civil bi am kon président ñu di la ci sant bu baax a baax naam sa bopp ngay defal ndax euh, mbir moom gannaaw yëf yi gannaaw kenn gënu la cee yeey ab taalibe nga sun borom baaxale ñu indi la ci département Mbacké nga nekk kilifa état civil bu Touba ah defe naa ne ku yéene bi nga amoon yépp pour liggéeyal Serigne Touba ci bi nga xam ne taalibe bu nekk am na ko sunu borom jox na la opportunité bi moo tax ngay volontaire bu bu ma sëkk ndax gis nañ liñ ciy dox week-end samedi dimanche bi nga xam ne danga ko war a noppalu sax nga ñëw di ñu jàppale ci liggéey bi ngir du porter préjudice sa liggéey. waaye du porte préjudice liggéeyu commune bi effort boobu it bàyyi nañ ci xel bu baax a baax nii leerale nañ ko it ki nga xam ne mooy jawri ni sëñ te moom liggéey bi te di ko xëyal di ko yendal nekkal ko muy xalif général des mourides nii lañ ko ko leerale di eh, kon nag yàlla na la sëriñ bi nangul sab liggéey ndax sëriñ bi moom lu mu nangu rek bu ko fayee nga xam ñëpp xam gisal ko seen bopp di sant bu baax la président commission Bachir professeur Bachirou moom it ci ni mu ko euh, taxawoo waaye di sant ñi nga xam ne yëpp jàpp nañ ci surtout directeur cabinet bi nga xam ne mooy coordonnateur bi coordonné ko ba mel nii euh, di leen di di bu baax a baax démarche bi muy def ci organisation bi ak méthode bi di sant bu baax moor ci euh, coordination bi nga xam ne wax dëgg yàlla rafet na di. bàyyi tuuti bu ma noppee balaa ñuy ubbi kàddu gi euh, la monsieur le maire El Hadj Fallou Ndiaye président commission communication mu sànni ci ay baat ñu laase liggéey bi di wax rek agent yi nga xam ne yéen la ñuy muy euh, personnelu état civil bi te inspecteur Fall jiite leen ku nekk dégg na coow li ñuy wax pour nii naa état civil ay nii ay naa donc président ñu ngi koy wax naan dañoo jël ay nit def leen fi dañoo war a jël xale def leen fi waaye ku gé ku nekk gis naa système américain yi dangay jël ay xale yu bari teg jël ay boroom xam-xam yu mag teg jël ñu expérimenté teg ci seen kanam ñuy filtre yi nga xam ne maanaam bu dara ñëwee te melul ni mu war a mel danañ ko filtrer wala ñu jubbandiku ba mu jubbantiku nga ñu mu door a dem ndax résultat bi ñu am ci état civil ba ñu ci naw Touba ci Sénégal yépp ma muy dox nit ñi di am jàmm di jot seeni kayit li ñu weesu de mënuñu ko lijjanti parce que boobu nekkuñu fi waaye fi ñu tàmbalee jëm ci kanam lépp ku fi amu kayit dana tegu ci yoon yoon woo xam ne bu ëllëgee ki si yow dootoo am jafe-jafe wu ndax ku nekk xam na ne état civil commune yi maire bi yoru koon maire yi yoruñu koon président communautaire yoru yoruñu koon préfecture la nekkoon moo nekkoon centre bi bi nga xamee ne nag acte at trois bi ñëw na ñu jël ko indi ko ci maire yi donc maire yi ñooy mooy sa mooy mooy centre bi moo lépp moom la war looloo tax nag li nga xam ne avant maire yi la woon dana am tuuti jafe-jafe naam ñi ngi ci ci ni ni ñu li ñu ci xalaat ak li ci président xalaat ñi ngi ko fas naa defar ba la nga xam ne jiitu woon na lépp ñu teg ko ci aw yoon ndax kilifa yi nga xam ne seeni at romb na juróom benn fukki at yépp seeni kayit xaw na am tuuti jafe-jafe waaye teg nañ ko ci yoon woo xam ne ak programme boo xam ne yaakaar naa ne li ñuy def su àggee jafe-jafe yépp dana jeex ndax informatisé nañ ko def nañ euh, ko benn réseau boo xam ne am na quatre vingt di postes de travail yoo xam ne commune bi am na ko bon def nañ appel candidature ci ay ay informaticiens yoo xam ne nii danañ ci jël lu ma trente personnes ñu ngir ñu saisir li nga xam ne moo nekk ci registre yépp ñu jël ko dugal ko ci machine yi mu nekkee ci informatique nga xam ne boo foo taxaw ne diw laa tudd wala sama numéro kay nàngam la danañ mën a tàppe machine bi tiire ko signal la ko jox la nga dem ci diir bu minute yu néew a néew loolu lépp nag ñu ngi ko def ci bi ñuy waxtaanee ak président bokk xalaat bokk bëgg-bëgg bokk ma bëgg a jàpp defar dëkk bi ba mu war a bokk ci état civil yi nga xam ne ci Sénégal ñoo ci gën a rafetu doxin bu ñu defee loolu ba pare nag ñu def nañ ka appel candidature ay archivistes yoo xam ne ay loolu rek mooy doon seen liggéey nan la ñuy denc document boo koy denc noo koy def boo ko fa defee noo koy saytoo ñu jël ci ñaar ñoo xam ne loolu mooy doon seen liggéey di ko saytoo ndax état civil Euh, donc euh, salle d'archive ne ku jóg dugg fa dafa war a am responsabilité ñii kii moo ko yor moo fay dugg moo fay génn lu ñuy laaj moom lañ koy laaj luñ fa xew ñu xam ne moom mu nekk responsabilité boo war a chuté parce que dafa am ay barab yoo xam ne ak mbir yoo xam ne dafay am responsable maanaam nga xam ne kii moo ko yor ëllëg ak si biir loo fa gis xam ne responsabilité am la moom moo ko ci moom la jóge loolu nag yépp ñu ngi ci di la ci sant bu baax président di la ñaana rek li ma la waxoon léegi yal na la yàlla fay yal na la sëriñ bi nagul sab liggéey di ñaax rek agent euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci état civil bi di leen xamal ne nit bu nekkee ci dara da koy xam xam ban responsabilité la nekk ndax aw këyit moom état moom dafa nekk mbir mu doy waar ndax loo xam ne nit ki bu juddoo li ñu koy njëkk laaj mooy ana sa kayitu juddu booy dox ci àdduna ñu ne la ana sa carte booy génnee réew mi ñu ne la an sa passeport te lépp yéen a koy ci fii ci ci état civil lay juddoo maanaam loolu nag képp kuy sëgg yor big tiim taabal ak kayit di ca bind war a seet bu baax a baax li ngay def ndax nit day du am kayitu judd kayitu judd bi lay ànd ak mooy jur passeport kayit wu ne moo koy jur ba baa muy faatu ba ci certificat de décès ba lépp état civil la responsabilité bu toll noonu nag ku ko tiim di ko foye wala nga di ko négliger wala nga di ci def naan xëy na wala ab pare wala nga di ci dox loo xam ne nii du xalaat du lu wér yaa ngi tooñ sa bopp waaye yaa ngi tooñ nit ñi moo tax ñu di leen ma di leen ci ñaax rek ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax te xam responsabilité bi tegul ci bit bi ngeen di téye tiim registre bi ak kayit bi di ko bind ndax kenn ku nekk kat boo engagé woo ci dara ñu certifié la contrat nga signé ko toog di liggéey bu weer de ñu jox la tuut da nga am responsabilité la boo xam ne dafa am ay risque da dangaa def engagement yoo xam ne engagement bu dafa am ay risque risque boobu nag na ngeen fexe ba mucc ci surtout yéen ñi nga xam ne da ngeen yàlla da leen a dogal ngeen nekk ci état civil bi boo xam ne moo nekk ci dëkk bii di Touba donc te dëkk bi moom képp ku fi nekk responsable nga war a nekk mais référence nga war a nekk parce que dëkk bii dëkk borom référence la donc ab yaram référence la war a nekk jikkoo ku fi jikk ku fi ku mu yar it say jikko jikkoy référence ah, ah, référence nga war a doon ci bépp mbir booy dugg kon nag na ngeen ci góorgóorlu bu baax ndax boo gisee lii lépp ñu volontaire di ko def président jël engagement bi di ko def professeur jógee président commission juridique bi donc jóge dakaar ñëw ba fii toog week-end bi toog lépp di leen encadrer di leen former ngir bëgg ëllëg ci bi ngeen liggéey liggéey boo xam ne ku ko xool day xam ne ah waa Touba yii kat. seen ab liggéey rafet na